Bonjour, euh, chers auditeurs de Rium FM, ravi de vous retrouver euh, dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Loum. Alun euh, Loum. Il est le responsable euh, suivi et évaluation au niveau de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP. Bonjour, Monsieur Loum. Euh, bonjour, Elisabeth. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Euh, Monsieur Loum, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre euh, à nos auditeurs euh, de mieux vous connaître pour nous faire l'économie de votre euh, portrait qui est Alun Loum. Merci. Merci une de plus euh, de l'invitation. C'est un plaisir pour moi de venir ici à Rumi FM. Et j'en profite aussi pour vous saluer et saluer les, tous les auditeurs de Rumi FM qui véritablement fait un travail important au niveau de la chaîne médiatique du Sénégal. J'en profite aussi pour saluer mon directeur exécutif, M. Chermo, ainsi que toute l'équipe de la COSIDEP, mais également nos coordonnateurs régionaux qui sont au niveau des différentes 14 régions du Sénégal et qui véritablement abattent un travail extraordinaire au service de l'éducation. Mais aussi saluer et honorer l'équipe de la COSIDEP, donc qui véritablement aussi, au niveau central, fait un excellent travail. Je suis Aline Loum, je suis donc euh, le responsable suivi évaluation à la COSIDEP chargé par ailleurs aussi donc euh, de la recherche et de la documentation. Alilum est un peu un géographe de formation qui a étudié à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'à l'obtention de son master 2 en géographie. Et c'est par la suite euh, que j'ai rejoint la COSIDEP euh, dans le secteur de l'éducation, euh, un domaine qui me passionne, un domaine véritablement aussi qui est excellent et qui est la Donc euh, voilà. En tout cas, merci de nous euh, faire l'honneur d'être là ici avec nous aujourd'hui pour parler euh, des questions éducatives plutôt en cette veille d'ouverture des classes. On a vu que la COSIDEP, comme chaque année, euh, fait des recommandations à chaque euh, veille euh, d'ouverture des classes. Cette année également pour l'année scolaire, l'ouverture des classes de l'année scolaire 2020-2021, la COSIDEP a fait des des recommandations. Est-ce qu'on peut connaître justement ces recommandations euh, donc euh, données par la COSIDEP Tout à fait. La COSIDEP, euh, donc comme fidèle à sa mission, donc euh, surtout d'une éducation de qualité qui passe toujours par une très bonne préparation, par qui passe par une, je sais pas, une bonne programmation est revenu à nouveau cette année pour essayer de décliner une feuille de route qui peut permettre justement de, réussir la prochaine rentrée scolaire. Mm. Donc cette feuille de route-là est surtout orientée sur euh, cinq axes principaux. Le premier, il s'agit surtout de faire une mobilisation, une mobilisation autour des activités de vacances qui sont menées au niveau du territoire national. Il faut véritablement les soutenir parce que cette année, nous avons donc un mois seulement de vacances et là où peut-être qu'on vous parle à ce moment-là, donc euh, on n'est même plus à un mois, on est à quelques peut jours de la prochaine rentrée scolaire. Donc il faut davantage soutenir les actions citoyennes qui sont faites au niveau terrain. Et surtout, donc, cette année, au niveau de ce qu'on appelle les cours de vacances, qui rentrent justement dans cette année, dans le cadre de la remise à niveau des élèves des classes intermédiaires. Mmh. Ça, c'est un élément important pour nous. Le deuxième élément important pour nous, c'est une mobilisation forte autour de notre fameuse campagne Ubitei Jangtei. Et cela, véritablement, doit être une réalité. Pour surtout cette année, donc, dont nous de sortir l'année la, Covid, qui a été exceptionnelle, Et justement aussi pour cette prochaine rentrée, donc qui débute tardivement au mois de novembre, et qu'il faudra relever un défi de taille, celui du quantum horaire. Donc, il faut que l'on puisse opérationnaliser le concept Ubbi Tey Jàng Tey pour que les cours, cours puissent démarrer dès le premier jour de la rentrée. C'est possible. C'est possible à travers l'engagement des acteurs. C'est possible si tous les acteurs s'y mettent. C'est possible s'il y a une mobilisation forte autour de l'école. C'est si les écoles sont bien préparées. Le troisième élément pour nous, donc, c'est toujours dans ce cadre-là, la disponibilité des écoles pour qu'on puisse avoir des écoles sûres, des écoles sécurisées, des écoles salubres dès le jour de la rentrée scolaire. Et là, on peut c'est tributaire par rapport à notre concept Obité Djangte. Et c'est important pour que l'on puisse réussir ce pari-là. L'autre élément important, c'est que au niveau, donc, euh, au niveau du, du, du ministère de l'Éducation nationale, on a organisé ces dernières euh, semaines de restitution sur le bilan de cette année mais également sur la préparation de la prochaine rentrée. Et il y a de fortes recommandations qui ont été faites par tous les acteurs. Mmh. Je rappelle que cette rencontre a réuni la quasi-totalité des acteurs autour de l'éducation, syndicats, syndicats COSIDEP, parents d'élèves, acteurs institutionnels. Donc beaucoup d'acteurs de l'éducation étaient présents au niveau de ce séminaire-là. Et il y a de fortes mm-hmm. voir comment est-ce que ces recommandations qui ont été proposées au niveau central puissent être opérationnalisées au niveau terrain selon le contexte local. Donc parce que donc c'est juste des recommandations donc globaux qui ont été globales, excusez-moi, qui ont été données au niveau central, mais pour chaque région, il y a certainement des spécificités qui pourraient faire que telle ou telle recommandation soit appliquée de manière différente. Donc là, pour que toutes ces recommandations là puissent être, je Le quatrième élément important, c'est quoi C'est le monitoring des accords entre gouvernement et syndicats. Il faudrait que véritablement que le gouvernement puisse reprendre le dialogue avec les syndicats, voir les revendications, voir comment est-ce qu'il pourrait anticiper par rapport à ces revendications-là pour que la prochaine année, la prochaine rentrée, ne puisse souffrir d'aucune perturbation. On n'aura pas du tout droit à l'erreur, il faudra qu'on soit concentré. Mm-hmm. Le pour la COSIDEP, c'est aussi, il faut que des pour que les élèves soient très orientés pour que les enseignants qui doivent faire des mouvements, c'est-à-dire qui doivent être affectés, puissent très tôt être affectés au niveau de leur zone, pour que aussi les euh, enseignants qui sont au niveau des centres de formation puissent être disponibles très tôt pour le mois de novembre et puissent être opérationnels sur le terrain. L'autre élément et le dernier élément important, c'est que il faut aussi surtout que les de fonctionnement alloués aux établissements puissent être disponibles pour que les établissements puissent démarrer à temps et se doter de tout le matériel et du dispositif nécessaire pour la euh, reprise des enseignements apprentissages dès le 12 novembre. Nous allons, Monsieur Loum, nous arrêter euh, sur le Ubitei Jang Tai euh, et vous avez euh, énuméré euh, beaucoup de paramètres allant dans le sens de la concrétisation de ce slogan qui, depuis des années, euh, est une réalité ici au Sénégal. Aujourd'hui, on est dans un contexte de pandémie, la particularité déjà de cette année nouvelle. Donc, il y a l'ouverture des classes, il a également les inondations qui font que certains, certains donc sont logés jusqu'à présent dans des écoles ici au Sénégal, à Dakar même particulièrement. Pensez-vous que ce concept, cette année, euh, fera euh, écho favorable ou aura ce succès euh, connu ces dernières années. Oui, vous avez tout à fait raison quand vous évoquez qu'il y a beaucoup d'établissements qui actuellement accueillent des parents ou plutôt justement des ménages qui sont dans les difficultés dues à l'hivernage. Ça c'est vrai, ça on ne peut pas je pense que toujours c'est dans le cadre de l'organisation, c'est dans le cadre de la planification, c'est dans le cadre justement donc euh, de comment mieux préparer l'année scolaire. Oui, il y a des personnes qui sont au niveau de ces établissements-là, mais il s'agit dès maintenant de voir des stratégies de les reloger ailleurs pour que ces établissements-là puissent être libérés dès le jour de la rentrée. Il y a des bâtiments qui sont et des édifices publics qui sont partout au niveau du Sénégal. Au niveau des régions, il y a par exemple des centres socio-culturels. Au niveau des exemple des foyers socio-culturels. Au niveau des régions, il y a des bâtiments, des édifices publics qui sont inoccupés. Et pourtant, ces édifices-là peuvent accueillir ces familles en difficulté et justement laisser la place pour que la rentrée puisse être effective dès le jour de oui, c'est vrai que ces personnes-là sont dans une situation un peu compliquée et difficile, mais derrière ces situations compliquées et difficiles, l'ingéniosité de l'homme, la part de réflexion que l'homme dispose pour lui permettre de voir d'autres sources d'alternatives qui puissent permettre de loger ces personnes-là justement dans d'autres édifices et pouvoir donner maintenant à l'école cette chance-là de pouvoir être fonctionnelle dès le jour de la rentrée. On en aura besoin. Mhm. Cette année, les cours ont débarré tardivement, novembre. Et aussi, il Nous sortons d'une année scolaire compliquée, perturbée, où il faudra maintenant se projeter vers une année au niveau de laquelle ça sera paisible. Pour que les élèves, surtout ceux qui étaient au niveau des classes intermédiaires, qui ont beaucoup perdu, puisse rattraper le temps. Pensez-vous que le défi euh, sera euh, facile à relever selon vous Justement, ces, ces, élèves qui sont dans les classes intermédiaires ont plusieurs défis à relever. Les enseignants, euh, par le niveau, également le rattrapage. Oui, tout est question Je pense que s'il y a une très bonne organisation, donc cela euh, euh, de définir un nouveau protocole pédagogique. Tout à fait. Avec la pandémie de la Covid-19, on avait déjà donc euh, euh, défini un protocole pédagogique qui permettait d'abord donc de réduire le programme, qui permettait de voir au niveau du programme quels sont les aspects essentiels qu'il faudra faire, qui permettait de va faire ceci, qu'on Avec la reprise également, donc cela peut être reproduit. Il s'agit de définir un nouveau protocole pédagogique. Un protocole pédagogique va d'abord mettre l'accent sur ce qu'on appelle la remise à Par exemple, lors la reprise donc, euh, de cette année 2020-2021, le mois de novembre et de décembre peuvent être consacrés à la remise à niveau. Donc, c'est-à-dire euh, au niveau de ces élèves le programme, qu'on complète ce qu'on n'avait pas pu euh, réaliser au cours de l'année scolaire 2019-2020. Donc, qu'on fasse de manière générale cette remise à niveau-là qui les permettra d'être aptes pour que dès le mois de janvier, les enseignements Donc cela va se passer justement à travers un protocole pédagogique nouvellement défini et qui mettra l'accent euh, qui fera le recentrage autour de ces élèves-là au niveau des classes intermédiaires pour davantage donc euh, accentuer le remise à niveau et compléter ce qui n'avait pas été fait au niveau du programme. Euh, vous avez abordé la question de l'orientation euh, lorsque vous parliez des recommandations. Aujourd'hui, euh, certes, ces élèves, il y a de nouveaux bacheliers orientée, il y a déjà des nouveaux bacheliers de l'année 2019-2020 euh, qui jusque-là ne sont pas encore orientés. Concrètement, est-ce que la COSIDEP est intervenue dans ce dossier euh, Oui, le problème de l'orientation des nouveaux bacheliers pose des problèmes depuis des années. C'est évidemment un problème qui revient presque chaque année. Et d'abord aussi, il faut saluer donc euh, ou voir reconnaître, plutôt reconnaître Donc euh, l'engagement des acteurs plutôt étatiques qui ont véritablement cette année fait un bond en termes d'orientation, ça il faut le reconnaître. Oui, donc euh, ont été orientés au niveau des universités publiques. Il y en a eu beaucoup. Contrairement à d'autres années, oui, c'est la bon. On ne collabore plus, je parle de l'État, ne collabore plus avec les universités privées. Donc l'option qui s'impose, c'est l'université publique qui n'a pas cette capacité d'accueillir tous ces bacheliers. Tout à fait, tout à fait, Donc euh, Euh, comme je le disais effectivement cette année euh, les étudiants beaucoup d'étudiants d'ailleurs je précise que beaucoup d'étudiants ont été orientés au niveau des universités publiques mais derrière cette orientation là aussi il faut voir est-ce que les enseignements apprentissages ont suivi là je dirais que non parce que déjà à Ziguinchor parce qu'il y a deux choses entre orienter l'étudiant et d'autre part que l'étudiant puisse faire cours à Ziguinchor par exemple cette année c'est une année on À Saint-Louis également, il y a eu des perturbations. Les universités ont dépassé leur capacité d'accueil depuis des années. Et l'État continue davantage de pomper ces universités-là d'étudiants. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État a pris l'option cette année de ne pas orienter les étudiants au niveau des établissements privés. Donc là, la seule option possible, c'était de les orienter au niveau des universités publiques. Et là aussi, il faut le reconnaître, et je le précise, beaucoup d'étudiants ont été orientés, même si quand même, il y a toujours d'autres euh, des étudiants donc, qui n'ont pas encore bénéficié donc, d'orientation. Mais quand même, euh, les universités publiques de Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis et également Thiès ont pu résorber une bonne quantité de ces étudiants-là, mais également à travers l'université virtuelle du Sénégal aussi qui a accueilli un bon nombre que toujours, il faudrait que tous les étudiants tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat puissent être orientés, faire les études supérieures et avoir les mêmes chances de réussite que ceux qui sont déjà au niveau de ces universités-là. Mm-hmm. Nous, nous accordons une place importante par rapport à l'équité. Mm-hmm. C'est important. Il ne faudrait pas que des étudiants puissent avoir plus de chances de réussite que d'autres par souci de ne être orientés. Effectivement, c'est l'État qui garantit le droit à aucune personne, notamment à un élève qui a obtenu son baccalauréat et qui désire justement faire des études supérieures. L'État doit lui ouvrir toutes les chances pour pouvoir accéder à ces études supérieures-là. L'État prévoit justement d'orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système personnel. Pensez-vous que c'est pour régler cette euh, problématique euh, d'orientation des étudiants et pour régler également ce problème de non-cohérence entre l'emploi et euh, l'éducation Oui, euh, c'est important parce que jusqu'à présent, il y a une non-cohérence par rapport à l'emploi par rapport également donc euh, à la formation. Parce que on voit que les offres de formation ne sont pas adaptées par rapport aux besoins du marché du travail. Et au niveau de la formation professionnelle, c'est justement on réussit à orienter 30% de la population estudiantine au niveau de cette formation-là, et que cette formation professionnelle d'abord puisse répondre aux besoins du marché du travail, cela pourrait être une décision salutaire. Les élèves qui durent dans le système et au sortir n'ont pas d'emploi. Ce problème d'orientation, est-ce que vous pensez que cette décision de l'État va régler définitivement ces problèmes Je pense que d'abord c'est l'ambition, c'est l'objectif principal. L'objectif principal c'est justement donc euh, de ne pas euh, réduire la, le nombre de chômeurs donc qui justement après avoir fait de longues études ne parviennent pas à avoir un travail ou même un simple stage. Mm-hmm. Là, je pense que si l'État parvient à orienter une masse importante, donc des étudiants au niveau de la formation professionnelle, et que ce soit des formations professionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui répondent aux besoins du marché du travail, et que ce soit aussi des formations professionnelles de courte durée, bac plus 2, au maximum bac plus 3, et que l'étudiant puisse sortir et être opérationnel, je pense que là, ça va davantage être un facteur dans le cadre de la recherche du travail pour ces étudiants-là. qu'il prône. Dès le moment que l'État peut-être prône c'est, c'est, cette politique-là, certainement, donc il mettra tous les moyens qu'il faudra pour le faire. Parce que je pense que c'est juste une cohérence. Si, par exemple, on fait une étude au niveau du marché du travail au Sénégal, que l'on identifie les secteurs au niveau desquels le marché du travail a besoin, je ne sais pas, de recruter, que l'on identifie les secteurs porteurs, les secteurs clés de l'économie sénégalaise. Une fois que cette cartographie-là aura été faite et les besoins se trouvent à tel ou Mais l'autre élément sera justement d'orienter la formation au niveau de ce cadre-là. Si on parvient à orienter la formation et qu'on puisse avoir ce niveau de cohérence-là entre la formation professionnelle et le besoin réel du marché du travail, automatiquement, ces étudiants-là, quand ils sortiront, ils ne vont pas du tout chômer. Ils vont automatiquement intégrer ces emplois-là qui les attendent et qui justement donc devraient permettre de davantage euh, accroître le niveau économique du Sénégal. Donc c'est une bonne initiative. Parfaitement, c'est une bonne initiative. Ça, là, nous consentons. Et là également, ça répond d'ailleurs ça euh, à la politique, euh, à la lettre de politique sectorielle, qui prévoit donc au niveau de ces décisions-là que 30% donc soit au niveau de la formation professionnelle. La formation professionnelle ne doit plus être actuellement comme euh, une alternative pour des élèves qui sont en situation de décrochage oui. ou pour des élèves qui, qui, qui ont été des cartouchards. Oui. Mm-hmm. Non, non, non. Ça doit être à l'image de l'éducation de manière générale, a le droit de pour d'orienter donc les étudiants qui le souhaitent au niveau de la formation professionnelle, de les accompagner avec une formation de qualité pour que la formation soit d'abord qualifiante, pour que aussi la formation soit certifiée, ça également important, et pour que aussi l'insertion soit facilitée. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Alun Loum. Il est responsable suivi et évaluation à la COSIDEP. Monsieur Loum, euh, nous parlons de la stabilité euh, donc de l'année scolaire. Vous l'avez également évoqué dans vos recommandations. Est-ce que c'est faisable vu le contexte actuel et vu ce qui se profil des enseignants, euh, des syndicats d'enseignants qui se signalent. Il y a le SAEMS, il y a le G20 qui a déjà entamé donc un mouvement d'humeur. Pensez-vous que ce sera possible cette année Tout est dans, dans les questions donc euh, d'orientation, tout également dans les questions de volonté. Je pense surtout donc euh, les séminaires organisés par le ministère de l'Éducation les 1er, 2 et octobre donc devrait jeter les bases d'une bonne préparation de la prochaine rentrée scolaire. La prochaine rentrée scolaire, je pense que ne doit pas être une surprise sous aucun aspect pour les autorités. C'est vrai de l'année scolaire 2019-2020, il y avait eu un patriotisme de tous les acteurs, notamment des enseignants, qui ont accepté donc de sursoir à leur mouvement et pour répondre à l'appel de la nation, pour accompagner les élèves, notamment les élèves des classes d'examen. Mais il pas saisi la balle au rebond pour euh, justement régler définitivement euh, la question des lenteurs administratives. Aujourd'hui, on nous dit que l'année 2020 a été une année morte pour ces procédures et sortent de cette année beaucoup plus frustrés que les autres années Bon, le, la problématique de la revendication des enseignants, elle est, elle est pérenne, elle est, elle est, depuis des années, donc euh, une question préoccupante au niveau du système éducatif sénégalais. Mais je pense là, c'est surtout l'État. Il faudrait que l'État puisse signer avec les enseignants des accords réalistes et réalisables. Et une fois aussi que les accords soient signés, il faut que l'État fasse le suivi et que ces accords-là puissent être respectés. Les enseignants, donc, ce qu'ils réclament, c'est presque lourd dû. Donc, c'est justement des choses qui sont signées avec l'État, Donc c'est maintenant à l'État de voir comment est-ce qu'il pourra concrétiser tout cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas exactement bon, quel est l'enseignant qui a dit cela, mais ce qui est, le plus important, c'est que justement, que l'État, au niveau de la préparation de ces séminaires de préparation pour la prochaine rentrée, puisse tirer toutes les leçons qu'il faut et bien préparer l'année scolaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, voir les revendications, voir les revendications, euh, je ne sais pas, vers lesquelles il pourrait avoir un accord définitif que ces accords-là soient définitifs et signés et que justement les enseignants puissent disposer de leur faveur. S'il y a également des accords qui ne puissent être pas signés ou qui ne puissent pas être respectés dès cette année-ci, qu'ils en discutent de manière claire et nette. Comme ça, là, tous les acteurs sauront exactement vers quoi ils vont aller. Mm-hmm. Donc je pense éviter des perturbations au niveau de l'année scolaire 2020-2021. Et comme je l'ai dit, ça sera une rentrée scolaire déterminante, une rentrée scolaire post-Covid qui sera véritablement donc euh, euh une rentrée phare pour que l'on puisse relever les défis du canton horaire parce que l'année va démarrer tardivement au mois de novembre. Mm-hmm. Et sur ce processus de négociation entre État et enseignants, on voit deux fronts également. L'État négocie avec une seule entité. Aujourd'hui, l'autre entité qui est laissée euh, de côté, ça crée également des frustrations de l'autre côté. Euh, vous, de la COSIDEP à votre niveau, est-ce que vous avez euh, essayer de réunir euh, toutes les entités euh, du mouvement syndical enseignant. Par exemple, quand vous dites euh, négocier avec une entité, avec une autre entité. G6 et le G20 laissé à l'écart. C'est le G. Et l'État 7 Il faut d'abord savoir que le G7, donc, c'est l'entité représentative qui est habilitée à discuter avec l'État au niveau des revendications. Les syndicats ont fait ce qu'on appelle des élections représentatives. Et là, c'est le G7 qui a été le mouvement syndical le plus représentatif. Et l'objectif maintenant de ces élections-là, c'était justement que ces syndicats le plus représentatif puissent être autour de la table avec l'État et discuter. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ce cadre-là. C'est tout à fait normal et légitime que l'État discute avec le G7 parce qu'à l'issue de l'élection, c'est le G7 qui a remporté cette élection de représentativité. Donc, mhm. il en même temps, puisse voir des stratégies pour que les autres syndicats ne soient pas frustrés. Même si l'État est dans sa légitimité de discuter avec les G7, ça je le précise à nouveau. Mais quand même, pour une année scolaire apaisée, paisible, il faut voir des stratégies de discuter avec tous les syndicats pour que personne ne soit frustré et que pour que toutes les recommandations ou les raccords signés puissent être respectés en vue d'avoir une année scolaire La COSIDEP donc toujours est dans cette euh, initiative là, dans cette initiative euh, de synergie, dans cette initiative également donc de toujours prôner pour la qualité des enseignements apprentissages, dans cette initiative aussi pour que l'année scolaire ne soit pas perturbée. Et comme fidèle à sa mission, elle l'a fait à plusieurs reprises. Elle a appelé les syndicats autour, discuter avec eux, voir quelle est la stratégie, je ne sais pas, donc de réconciliation euh, de négociation pour que tous les accords puissent être signés et que justement le euh, les campagnes euh, de vacances euh, pour l'école, organisées souvent par cette organisation, cette année, ce que cela a eu lieu Parfaitement. Il a, ces campagnes-là ont eu lieu. pour l'école euh, qu'on a organisée à Thiès le 29 Donc euh, c'est une campagne qui permet d'avoir une table multi-acteurs d'échange, de dialogue autour de thématiques qui pourraient préparer euh, justement la prochaine rentrée. Et souvent quand vous parlez de multi-acteurs, à qui faites-vous allusion Quand on parle de multi-acteurs, il y a par exemple les acteurs de l'éducation, il y a la société civile, il y a les institutionnels, il y a les mouvements syndicaux, les parents d'élèves, les organisations également, les OCB, Donc tout ce qui tourne autour de l'école, autour de la communauté éducative sont évités au niveau de ces rencontres-là. Et le panel de Thiès avait permis justement de faire un bilan de l'année scolaire 2019-2020, mais aussi de jeter les bases pour une bonne préparation de la prochaine euh, campagne Nos vacances Et cela également à travers cette campagne, nous avons instruit à nos antennes régionales qui sont au niveau des 14 régions du Sénégal, à qui d'abord donc euh, nous saluons une fois de plus et que nous renouvelons donc notre satisfaction par rapport au travail qu'ils abattent au niveau terrain Donc la COSIDEP a instruit ces antennes-là d'accompagner les initiatives locales qui rentrent dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée. Il s'agit de voir comment accompagner par exemple les organisations au niveau local dans le désherbage des établissements, dans la dotation de matériel, que ce soit pédagogique, que ce soit de matériel sanitaire, dans l'organisation de débats, de causeries, de panels pour la préparation de la prochaine rentrée. Donc la COSIDEP s'est campagne Ubité Djangte avec tous les moyens du bord pour que justement cette campagne ou plutôt euh, la, la, le démarrage des cours mm. puisse être effectif dès le premier jour de la rentrée. Et, euh, dans ce processus, justement, vous évaluez, euh, vous le dites, donc euh, c'est sur la base de ces évaluations que vous élaborez des rapports euh, que vous proposez au gouvernement. Comment ça se passe la COSIDEP euh, a une entrée par ce qu'on appelle la recherche. Donc que nous discutons par rapport à une question, nous le documentons d'abord à travers des enquêtes terrain à travers justement des recherches, à travers des rapports, comme vous l'avez dit, qui permettent justement de jauger ce qui se passe réellement au niveau terrain. Parce qu'on ne peut pas être au niveau central et vouloir faire des recommandations et que ces recommandations ne répondent pas aux réalités locales. Par exemple, avec euh, la pandémie de la COVID-19, nous avions élaboré ce qu'on appelait une checklist. Une checklist qui était basée, une à dire donc euh, euh, un nombre de points que l'on la véracité au niveau terrain. Par exemple, on avait dit qu'on allait établir un protocole sanitaire. Les établissements scolaires avaient établi un protocole sanitaire recommandé par les autorités sanitaires. Il fallait pour la reprise des enseignements apprentissage que les écoles disposent d'eau, que les écoles disposent de toilettes, que les écoles disposent de matériel de protection. Ça, c'était pour les candidats, c'est-à-dire pour la reprise du juin. Donc, il y avait ce qu'on appelait administrer cette checklist, c'est-à-dire cette petite enquête-là, au niveau de près d'une centaine d'établissements au niveau du Sénégal, pour voir si est-ce que réellement il y avait une adaptabilité par rapport au point. Est-ce qu'il y avait de l'eau au niveau des établissements Est-ce que les blocs sanitaires étaient fonctionnels Est-ce que le matériel de protection était disponible Est-ce que les enseignants étaient au niveau des établissements on avait produit un la reprise des enseignements apprentissage basée aussi sur des enquêtes au niveau local base également sur des enquêtes au niveau international voir les bonnes pratiques en matière de gestion de l'éducation pendant la crise pendant une période de crise pour essayer de ressortir les bonnes pratiques qu'il faut valoriser et donner justement ses contributions aux autorités locales donc nous donc c'est toujours par la recherche euh, que nous que nous documentons nos propositions et que véritablement c'est ce qui fait certainement peut-être que nos propositions sont souvent donc euh, appréciées. Est-ce que ce dispositif a été remis euh, donc au jour à quelques jours également euh, de l'ouverture des. Pour le moment, on n'a pas encore euh, remis à jour euh, ce dispositif, mais avec euh, nos campagnes au Betey donc nos antennes seront regardants par rapport à tous ces aspects-là, parce que nous, nous sommes toujours donc dans un rôle de veille et d'alerte, mm -hmm. dans un rôle de, de, de vous n'avez pas encore élaboré la situation qui vous permet de jauger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette euh, faisabilité du Ubitei Yang. Non, on n'a pas encore joué ces situations parce que, je vous l'ai dit, actuellement, nous sommes dans une période de préparation de la prochaine rentrée. Il s'agit d'abord d'accompagner. Il s'agit d'abord d'accompagner les initiatives locales dans la préparation de la prochaine rentrée. de la prochaine rentrée, là, on pourra maintenant jauger. Parce que par exemple, si on jauge donc le niveau d'étude sera donc biaisé. Mais il faut accompagner d'abord ce qui est en train d'être fait au niveau local, soutenir les initiatives, soutenir la préparation de la prochaine rentrée et de voir maintenant à quelques jours de la rentrée quel sera le niveau de préparation de ces établissements-là. Ça permettra d'abord de faire le background bien avant pour maintenant pouvoir faire à quelques jours de la rentrée une situation, une photographie des établissements pour elles sont, ils sont prêts à accueillir les étudiants, ou plutôt les de crainte par rapport à la situation euh, de la COVID-19, vu que mais on note le retour des cas importés. Et euh, dans d'autres pays, euh, en Europe par exemple, on voit ce qui se par rapport à ces ouvertures de classe Oui, euh, par rapport à l'ouverture des classes même au-delà donc, euh, de, la, de, de, la pandémie de la Covid-19, il y a, il y a des craintes qui sont là. Qui sont d'ordre d'abord euh, nombre effectif d'apprenants qui vont reprendre. Vous savez, euh, avec, euh, je, vais en venir avec la Covid après, avec les classes, des, les élèves de classe intermédiaire qui étaient mis en vacances, mm. c'était 3 millions. Avec maintenant la prochaine reprise, on risque de s'acheminer à près de 4 millions d'apprenants. Est-ce que notre réseau scolaire est suffisamment prêt pour Ça, c'est une question. L'autre question, vous l'aviez évoquée tout à l'heure, par rapport aux établissements scolaires qui accueillent actuellement des personnes qui sont euh, sorties de leur euh, maison à cause de l'inondation. Est-ce que réellement aussi les établissements pourront accueillir tout ce dispositifs là Et l'autre élément important qui est un facteur de crainte, c'est la COVID-19. La COVID-19 Sénégal. La COVID-19 est jusqu'à présent là avec, euh, donc le taux de contamination est un peu dans une tendance baissière, mais il faut sécuriser ces établissements pour que ça ne soit pas des foyers de propagation dans des pays comme la France par exemple, on voit qu'ils ont commencé à instaurer le couvre-feu à nouveau dans certaines euh, régions, dans certaines villes. Et là aussi, donc, il y a véritablement de choses à craindre. Mais quand même, si euh, le protocole sanitaire donc, est revu, si justement davantage euh, par rapport aux recommandations que l'on a fait au niveau, donc, niveau central soit appliqué, opérationnalisé, mhm. et que la bonne préparation aussi puisse suivre, peut-être que toutes ces craintes-là, donc euh, n'aurait pas lieu. Aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, par rapport à, à l'effectif qui euh, sera accueilli cette année, euh, donc vous parlez de 4 millions euh, donc euh, d'apprenants. Aujourd'hui également, le taux de réussite noté lors de ces trois examens ou de ces différents examens, il y a eu un taux de réussite euh, satisfaisant, donc plus que satisfaisant euh, depuis 1960 à nos jours. quelle est l'appréciation de la COSIDEP sur ces résultats Oui, donc euh, peut-être euh, aller jusqu'à 1960, c'est un peu loin parce qu'on avait autour de 2006-2007 des taux de réussite qui étaient un peu à cette, à cette tendance-là. à un peu cette tendance-là qu'on a, qu'on a, qu'on a observé cette Mais quoi qu'il en soit, cette année, véritablement, on a eu véritablement donc de, un bon taux de réussite, au niveau des examens. Que ce soit au niveau du CFE, que ce soit au niveau du BFM, que ça soit également au niveau du bac. Et ça, c'est vrai que depuis des années, on n'avait pas encore vu cela. Et cette année, il y a beaucoup de facteurs qui ont milité par rapport à ce bon résultat-là. D'abord, c'est quoi Il y a l'engagement des acteurs. Les acteurs se sont engagés, les acteurs se sont déployés, que ce soit les enseignants, que ce soit les, acteurs institutionnels, que ce soit les organisations de la société civile comme nous l'avons constitué, tant aussi les élèves. Ils se sont tous engagés, ils ont eu ce sursaut psychologique auxquelles la Covid-19 a imposé le système éducatif sénégalais. Mmh. Ça, c'est un. Le deuxième élément important qui a peut-être milité favorablement à ces bons résultats la c'est le protocole pédagogique. Quand on parle de protocole pédagogique, on avait dit que, par exemple, au niveau du programme, on va élaguer certaines parties et focaliser les examens sur l'essentiel. Là aussi, cela a permis aux élèves de se concentrer directement sur l'essentiel, d'aller apprendre réellement l'essentiel. Et est-ce qu'il ne faudrait pas le programme Est-ce que ce qu'on enseigne à nos élèves n'est pas encyclopédique Est-ce que ce n'est pas trop large que véritablement, il faut voir comment alléger le programme. Ça, c'est un élément Le troisième élément important, c'est l'effectif. Avec la pandémie de la COVID-19, on avait 551 000 candidats aux examens qui faisaient cours et les 3 millions des élèves des classes intermédiaires étaient mis le nombre réduit, des classes de près de vingtaine d'apprenants. L'encadrement sera davantage beaucoup plus facile avec les enseignants. L'enseignant pourra suivre de manière beaucoup plus précise chaque élève selon ses faiblesses pour davantage l'accompagner. Et cela aussi a fortement milité par rapport aux résultats qu'on a obtenus cette année. Donc, ces résultats-là sont à la fois le fruit de l'engagement total, mais également du protocole pédagogique qui a permis aux enseignants, de pouvoir se sursoir, de s'engager et obtenu ces bons résultats. C'est également l'occasion de saluer et de féliciter l'engagement des enseignants qui se sont déployés au même titre que le personnel sanitaire, au même titre que les forces de défense et de sécurité qui ont répondu à l'appel à la nation, qui se sont sacrifiés, qui se sont engagés pour justement permettre à ces élèves-là au niveau des classes internes, plutôt d'examen, de pouvoir faire cours normalement et véritablement d'avoir les résultats appréciables qu'on a eu Quelle lecture faites-vous euh, de cette assertion d'un syndicat d'enseignants qui parle de deal euh, donc à cause déjà de l'allègement du programme, des épreuves faciles données à ces élèves, à ces candidats On ne saurait dire de deal. Les résultats des examens de, de cette année, on ne saurait les discréditer. C'est le fruit de l'engagement des acteurs. C'est le fruit de la détermination des élèves. C'est le fruit, euh, je sais pas, de de toute la chaîne des acteurs qui s'est mobilisée. La Covid-19, ça a été une pandémie internationale. Ça n'a pas justement été une pandémie au niveau sénégalais. C'est plusieurs pays. Et chaque pays au niveau mondial a essayé de trouver une solution pour que ne, ce pays ne soit pas, je sais pas, mis face à l'histoire. Et le Sénégal aussi ne pouvait pas être en reste. Le Sénégal a défini des protocoles pédagogiques, des protocoles sanitaires pour justement continuer les enseignements, à l'image des autres pays. Il n'y a pas de pays, ou peut-être s'il y en a, ça sera très minime qui ont décrété une année blanche. Tous les pays ont véritablement essayé d'apporter des solutions par rapport à leur système éducatif pour la continuité de l'enseignement-apprentissage. Ce que la COVID-19 nous a appris, c'est que quoi Au niveau donc des différents secteurs d'activité, s'il y a un secteur qui puisse être arrêté, c'est pas l'éducation. S'il y a un secteur qui ne doit pas attendre, ce n'est pas l'éducation. du système éducatif ou de, de contre la Covid-19 s'est installé avec la reprise des enseignements apprentissage. Donc, on ne serait du tout donné un discrédit par rapport à ces résultats qui sont le fruit de l'engagement des acteurs, qui sont le fruit du protocole pédagogique qui est, qui est défini, qui est également le fruit de l'engagement de ces élèves-là, de ces apprenants-là, qui se sont déployés, qui sont allés faire cours dans l'hivernage en pleine pluie, qui se sont véritablement fait un sursaut, surpassé, voilà, pour justement obtenir ces résultats-là. L'éducation, c'est tout un ensemble. Il y a les parents d'élèves qui font partie de cette chaîne. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression que certains parents du privé sont laissés à eux-mêmes dans un combat où euh, il y a euh, l'école qui réclame aux élèves de l'argent Euh, donc pour des mois non enseignés. Aujourd'hui, est-ce que la COSIDEP également a été saisie sur cette question Oui, la COSIDEP, euh, je ne dirais pas a été saisie directement sur la question, mais nous, nous avons eu notre rôle d'observateur par rapport à cela. Et également, nous, notre, notre plaidoyer fort, c'est que justement, que les écoles privées donc, puissent, euh, je sais pas, accompagner ces élèves-là, puissent accompagner ces Parce que c'est pas, c'est pas, ce Encore... ces écoles réclament euh, cet argent à ses parents, bien que les enfants n'ont pas étudié. Non, du tout, nous, nous, nous, ne jugeons pas normal à la fin même, c'est anormal, carrément c'est anormal. Donc euh, les écoles privées là ne doivent pas justement donc euh, demander de l'argent aux parents qui n'ont pas qui n'ont pas justement euh, aux, auxquels les élèves n'ont pas n'ont pas étudié, n'ont pas n'ont pas fait cours. Donc à la limite c'est même anormal parce que les écoles privées avant même de demander devraient être Parce qu'il y a des écoles a des écoles privées qui ont, qui ont beaucoup Mais même, ce sont ces écoles privées-là qui devraient pouvoir de l'aide à certaines écoles publiques parce qu'ils sont des écoles nantis. Quand on le, par, euh, par, exemple, euh, euh alimentaire, on a visé les vulnérables, c'est-à-dire ceux qui, ne, ceux qui étaient dans des situations vulnérables. Mais aussi avec l'école, euh, aussi cela, la situation devrait se superposer. On devrait voir les écoles qui sont les plus vulnérables et les accompagner. Et certaines écoles privées, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des écoles qui sont véritablement nantis, sont des écoles qui disposent de moyens. Ils devraient accompagner même les écoles publiques qui, qui, qui, qui sont déficitaires de moyens, mais aussi à la limite devraient accompagner les parents et ne pas justement les demander de payer donc euh, des mois de cours donc euh, les élèves n'ont pas n'ont pas n'ont pas du tout fait. C'est pourquoi aussi l'État devrait être un régulateur par rapport à cela et permettre justement d'arbitrer davantage par rapport à cette situation qui justement mettra donc certaines parents en difficulté. Euh, Monsieur Lum, nous allons terminer euh, par cette bonne nouvelle, je dirais, parce qu'aujourd'hui on parle euh, de déficit de professeurs d'université. Il y a euh, l'université Gaston Berger qui a donc euh, fait des prouesses. L'université enregistre un taux de 80,4% lors de la 42e session de comité consultatif interafricain du CAMES. Donc on a aujourd'hui 41 euh, candidats 31 inscrits et 7 nouveaux professeurs titulaires, 11 maîtres de conférences et 15 maîtres assistants plutôt. Quelle appréciation Ah, c'est salutaire et véritablement aussi nous tenons à féliciter ces enseignants-là qui véritablement ont réussi au CAMES. Et c'est comme euh, ce que l'on dit toujours, le Sénégal dispose d'une ressource humaine de qualité. Ça, véritablement, il faut, il faut, il faut vraiment le, le, le saluer, il faut le noter. Et cela dans tous les secteurs. que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau d'autres domaines, les Sénégalais excellent. Et surtout au niveau de l'éducation, les professeurs qui sont au niveau de, du, du, du, Sénégal et qui enseignent au niveau des universités sont des professeurs émérites, sont des professeurs qui justement sont de forte qualité. Et cela vient davantage couronner le travail important qu'ils sont en train d'abattre en interne au niveau de ces universités-là et qui justement est salué et reconnu sur le plan africain et sur le plan mondial de manière générale. Donc nous félicitons Et véritablement, nous honorons ces professeurs-là qui ont réussi au lamé à ce concours prestigieux qui justement donc leur permet euh, d'élever davantage leur rang. Sur le déficit d'enseignants à l'université, quel appel lancez-vous euh, donc euh, aujourd'hui L'appel que nous lançons par rapport au déficit d'enseignants à l'université, c'est que euh, l'État puisse davantage accompagner le recrutement des élèves et des étudiants au niveau des, des, des universités. Parce que ce que l'on voit au niveau des, a qui sont à l'âge de retraite et qui continuent d'enseigner à l'université sous forme de contrat et qui, et qui vont partir bientôt. Et c'est ce qu'il faut maintenant faire pour voir quelles sont les stratégies d'accompagner les doctorats. C'est-à-dire ceux qui sont en train de faire les docteurs, euh, plutôt les doctorats, comment les accompagner, comment les capter, comment les prendre en charge, pour qu'ils puissent être opérationnels de la fin de la soutenance de leur mémoire, plutôt de leur thèse doctorale, et les opérationnaliser au niveau justement donc, des amphithéâtres pour qu'ils puissent donner des cours. Ça, c'est important. L'autre élément important aussi, c'est que peut-être il y a même beaucoup donc euh, euh d'étudiants qui sont actuellement donc euh, en dehors du pays, qui disposent de diplômes. Peut-être même si on est un peu à ce déficit aussi clair, on pourrait voir lancer des appels à candidature les personnes puissent candidater justement à, à ces postes-là et davantage recruter un nombre maximum d'étudiants que plutôt de, professeurs qui va justement combler le gap de professeurs qui se trouve au niveau des universités. Parce qu'au niveau de l'encadrement des mémoires, il y a un problème. Souvent, tu, souvent, on voit des professeurs qui encadrent plusieurs étudiants à la fois et c'est difficile. Souvent, on voit par exemple des étudiants pour un mémoire qui an ou deux, au maximum deux ans. La thèse, un étudiant qui a soutenu son master 2 et qui peine à avoir un professeur qui va l'encadrer en thèse. Et là, c'est des problèmes. Et cela aussi pose toujours le problème de l'équité et des chances. Parce qu'un étudiant qui a fait toutes ses études, qui a eu son bac plus 5, qui veut faire sa thèse et qui ne parvient pas à trouver un professeur pour l'accompagner, ça, véritablement, l'État aussi devrait voir euh, comment faire pour enlever de manière définitive grande plaie qui, véritablement, donc, pue au niveau des étudiants. Mmh. Euh, Monsieur Loum, Alun Loum, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la Le plaisir est partagé et merci beaucoup de nous avoir invités. Cela a été vraiment un plaisir. Et une fois de plus, euh, nous saluons tous les auditeurs de Réumi FM, mais également donc, tous les membres de la COSIDEP à travers mon directeur exécutif, M. Chermbo. Donc, euh, vraiment, merci.

suite des programmes sur MFM.